fii daal Jakarta léegi laa fi gisut Jakarta mais gis naa fi lépp noonu waaw ma fiya ali kon xoma ñoo ngi noonu <laughs> su mu gën a doyoo baax

waaw daa mel ni mbër moo yeg si noonu ndax tànk lëndëmal nañ xelu gaay ko doon xaati bi kër gi waaye dafa mel ni la waa ji waxoon sànq moo am ko information ba leen doon bëgg a jox moo am moo du

te ndekete moo am. Lac Rose nekkoon fi nga xamante ni mooy këram fa la dëkk. fa nekkoon fii nag mooy baasam. fii mooy baasam mooy kër cosaanam. Mhm. moo ay kër mboppam. mu war a ñëw mu ngi noonu. nee na ko mi ngi noonu. nee ko champion mi ngi noonu. nee na ko champion ngi noonu di wàcc. nee na ko mbër ngi noonu di wàcc. nee ko léegi mu wàcc. nee na ko ngi noonu. nee ko champion ngi noonu. nee na ko mbër ngi noonu ne ko mbër noonu ne wàcc na dugg këram moo doo ngi noonu moo doo ngi noonu Lac Rose la jóge Modou bandi ñëpp di ko xaati gi naka ma nga Lac moo doo noonu Lac Rose la moo ngi noonu dem ca fa nga xam moom mooy open press ba takk ay gaawam dem ca open press ba mhm. def mayom mhm. def débat dërëm def def li def kilo tam wala bu def mhm. baa bu neexee def lu ko saf def lu la te kenn ko wan yoon bi xam na fi mu jëm noo gisee Modou Lo arrivé bu Modou Lo arrivé bu doy waar la def arrivé bu am solo arrivé boo xamante ni parcelle gi yëpp dañoo yaakaar mu ngi ci kër gi naka ma nga foofee ca Lagos tëdd tey mu nekk loo xamante ni doy na waa ci mbaa parcelle doy na waa waa unité 10 ndax ci 16h ba gis mun la moo doon ci biir kër gi naka moo doon fële ca waaye mu ñëw fi indi fi ambiance bu am solo ambiance bu doy waar ñuy waaj nag jëm fële nga xam mooy ca terrain ba di waaj ñi nga xam moo di urban urban presse bi nga xam moom lay waaj loolu lay dox fii ak stade soriwul waaw fii ak tam mën a dox lu ci ne na ko def ndax champion la te star xam na ko ci làmb ku ne xam na ni ko xale yi duñ ko yàpp yaakaar nañ ni fi ñu toll nii fi waxtu bi toll nii lenn léeg moo ci des muy dem fa nga xamante mooy moo open jàkkaarloog li nga xamante ni moo di mbooloo mi. ak ñu ko doon xaar bu duggee ci kër gi du yàgg. du yàgg day daal di génn léegi dem foofee nga xam mooy open press ba ndax mbokk yaa ngi ko fay xaar fans yaa ngi ko fay xaar am di jaam yaa ko fay xaar. mais open press nocturne la lu bees tàkk la waa parcelle bi daaj bi def open press nocturne seen temps la ñuy jël dem def open press boo xamante ne guddi gi lay nekk képp wàcc mën ko seetaan. képp ku wàcc mën ko parce que boo xoolee démb Ama Baldé nee nañ ma nga ñëw ci stade ba 19h. Mhm. tey Modou boo xoolee tamit daa mel ni boobu slogan la bëgg la bëgg dem. Mhm. lu ne naa xew ci lamb ji. lamb ji daal ndax cinq ans def tëgg nañ ko làmb ji mhm. chaque année bu ñu ñëwee yàlla dogal ñu nekk làmb ju bëri woon coow waaw làmb ju bëri woon coow mën nañ ci defaat attention bu baax parce que mhm. fii ak dimanche bu ne xaj na ci nañ ci waxtaanaat bu baax a baax mhm. ndax am na ay affaire yu génn yoo xamante ne ñu ngi naan mën na am ci làmb ja ca jour ba ca géew ga yooyu noonu nañ ko bàyyi xel ñu ngi ñaan yàlla ñu bëri ko jàmm ci jàmm ak salaam kay la meilleur gagne loolu lay ñaan boo xoolee lamb dundaat na parce que ñaari mbër yi dañoo gëj a bëree mais depuis bi combat bi taxawee ba ñu face à face mais lii mais lamb ji dundaat na mais lamb ji kan ban lamb la lay fàttali mu ngi may fàttali Balla Gaye Modou seen premier combat 2010 2010 jël hélico ba waaw Modou Lo génnee ca benn côté ba. ñu ni jàpp ñu jàpp ni Balla Gaye ci porte bi lay mu ja mu jaar ca kaw tribune ba. wàccee ci escalier yi. jël jël jeex na ñu ni waat deux mille deux mille. deux mille dix neuf ñu bëriwaat ñoom ñaar le treize janvier. Balla Gaye indil ko ko la mu ko indiloon ca deux mille dix. wattu woote mu indi woon jàppanteeg moom yàlla dogal Balla Gaye amaat ndam ci kawam ñaar yoon. waaye tey tamit gars yi ba tey am na analyse boo xam bàyyi wuñ ko xel mhm. diggante Ama Baldé ak Modou Lo Balla Gaye dafa ñëw susu ci Ama Baldé loolu loo ci gis c'est très normal ki nga mhm. xamante ni mooy Ama Baldé ak Balla Gaye ay mbokk lañ mbokk la dañuy faral di entraîner ensemble ñëpp gis nañu Ama Baldé ak Balla Gaye mhm. ñu amee complicité bañ na ko bu duñu bëree parce que relation yi seen i waajur yi la woon nga xamante ni mooy Falaye Baldé nga xamante ni mooy Double Less amoon relation yu fraternel ñoom ñu ñëw dëggal ko parce que ci wax sax ñu ngi naan Double euh, Falaye Baldé moo jàppale Balla Gaye premier combat. Balla Gaye ak premier moo toogoon. moo toogoon ca kii ba di bënn bal ya. waaw kon loolu yëpp lu ci ne war nañ cee mën a xel. Mhm. di ñaan daal yàlla yóbbu ñu la 5 ak jàmm. que le meilleur gagne incha allahu rabbi foofee ca arène nationale le 5 le 5. yow ñu bëri ne nañ combat bu gaaw lay doon dóor bu daanu mën na cee am lamb ju neex nag gis naa ko. lamb ju doy waar lamb am ambiance. ñaari mbër yu ñemente. ku tardé doo gis dara. ndax ñoom ñaar ba ñemente nañ ñoom ñaar wóolante nañ ñoom ñaar xamante nañ kenn ku ci ne bu toogee. man leer na ma Ama Baldé day ñëw mais lan la fay fekk man loolooy sama problème. bu ñëwee man xam naa ne Ama bu arbitre ne prip day ñëw. mais lan la fay fekk. ndax pour mu daanu la wala bëre la wala xeex la lan la. lu ne lu ne mën naa am seen diggante ñoom ñaar ndax ñaari champion lañ. Mhm. parce que Ama daa jaar ci yoon ba yegg si du jaar ci yoon ba yegg si kon ñoom ñaar kenn ku ci nekk lu mu indi rek bu mu la bett. Mhm. que entraîné nañ te ay xale laa yëg Eumeu Sène ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ man dama naan ñoom ñaar bu la ko joxee <laughs> arbitre di ñëw lay yëkkati de <laughs> waaye lamb ji na doy waar la nañ ci bàyyi xel bu baax maa la ko wax ci xel bu baax a baax le cinq si lu agresseur bi ama di indil mbëri bu ko indilee Modou Lo lan moo nar a xew ama ñëpp xam nañ boo arbitre ne prip da lay agressé. waaye Modou daa mën bés. daa mën xeexu mbedd. waaw dafa mën xeexu mbedd ba pare dafa mën bés ndax boo déggee ñoom Modou daa mën bés Modou loo indi mu indi ko. dafa dal nii ñëpp a ngi ko doon xaar ci blouson ñii di ko xaar mu ñëw indil la yaa Oustaz jàllaa yaa Oustaz Modou la daal nañ ñaan yàlla yàlla yóbbu te jàmm que le meilleur gagne incha allahu rabbi. jaajëf gis ngeen noonu ba tey. tuma tay ci décortiqué bi mooy bii bu gën bi gën a ndaw war ne la lamb jee ko laaj lamb jee ko laaj tey lii day dundalaat lamb Sénégal dafa soxla genre waaw lii dafa waaw ni ñu waxtaanaa nag waaw ñu ñu jëlaat ki nga xamante ne mooy xale yi di waxtaanaat ak ñoom ci côté ci côté euh, li nga xam mooy mobilisation bi ñuy def bu ñuy dem stade ci côté simol bi nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax waaw waaw nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax waa ah, gis ngeen noonu xale yaa ngi noonu gis ngeen ko noonu Baye Fall loo bëgg manu ko gis ngeen ko noonu lamb ji cinq gaa yaa ngi koy wàcc yow ah gis ngeen noonu gis ngeen ko noonu baa nga noonu yor loxom gerte maa nga noonu di joxe gerte aye iyawo ama day maray la waa gis ko noonu gis ngeen ko noonu alaaji moo taale kebe mu sëñ Tuuba maa ngi koy waaji boom ginnaaw waay nee na ko Modou daa war a loolu. jàmbaa nga ni Modou dégg ni si da dégg si biir. na koy Modou di dégg. gis ngeen noonu nee na na bi biir. nee na na biir Modou dégg ko. nga ni. waaw waaw Modou rek di ñu topp. nee na na biir ndax Modou di ko dégg. ah. ama day xaar ba mu tooy. dañ koy rosa ba mu tooy. dañ koy toog yóbbu ànd ba pare tànn. ama dafa asma billahi wallahi taala dafa asma dafa asma mafia bàyyi noonu mafia bàyyi noonu mbiskit ma ngoog ma ngi joxe ma noonu di joxe mbiskit ma tey saax bu ne di nga ko gis naa fi saaxum gerte saaxum soow moo taala gerte gi bu ñu amoon ba boole ko ci dina baax moo tax la kafe gerte gi buñ ci boole woon kafe Touba dina baax de. ma ne ko waa Bamba ñoom El Hadj Kébé ñoom Mor ñoom Pambay Kheucha Flow maa ngi leen di bëggee di a baax nee na ñoo nga toog di ñu xel waa Dakar instant gis ngeen ambiance bi ngeen di moo tax la Kébé namm naa moo tax la Kébé sa mbëb may waaj a moo tax la Kébé tey ñu ngi sedd kumba mi sa ko ñu mbër di Parcelles diggante gis nga noonu waa mafia Tmax waa mafia bàyyi noonu waa mafia Tmax ah gis ngeen ko noonu ku daaneel sama moom jël waa mafia Tmax baa ngi noonu tey du yomb moo tax la Kébé maa ngi ci sa ñu mbër mi maa ngi nii parcelle moo tax la mu sëñ Touba bëgg Seexul Xatim Mafia Tmax baa ngi noonu gis ngeen noonu gis ngeen noonu li nga xamante ni moom la gaay di def fii ci pasel jàmba bëgg naa la jàmbaar noo gisee làmb ji diggante Ama Baldé Modou Lo ak mobilisation bi gars yi def tey noo ko gisee. non lii du gulet ci Modou mis dañ koy ñaanal may ko ndam rek. ji la wala bëre. su lu muy jeex bilaay tutuma dara. damay dina gaaw wala dina. damay ñaanal yàlla Modou ak Ama yàlla may leen tal ak fekkee bés bi ñaan yàlla mu am rek dara bañ waaw bu mu ñu door ko mu daanu. Modou ko dàq bëri dàq koo xeex. gis Modou génn na Modou Lo ngi noonu ma ne ko Modou Lo ngi noonu génnaat mu ngi noonu dugg na ci oto bi Modou Lo ngi noonu dugg na ci oto bi Modou Lo ngi noonu ci oto bi mu ngi noonu di dugg ci oto bi Modou Lo ngi noonu di dugg ci oto bi Modou Lo ngi noonu di dugg ci oto bi Modou Lo ngi noonu duggagul ci oto bi

Modou ngi noon di départ jëm foofee ca open press ba topp leen ma ñu dem topp leen ma topp leen ma Modou ngi noonu ci oto bi mbër dugg na ci oto bi woto baa ngi noonu di waaj a ñëw daamaax gi moo tax la jafe xanaa bëgg nga ndax tey dama li ne ma xëyee ci sa mbër ma laa yendu ji ndax moom Modou rek la bëgg El Hadj Kébé Modou Lo bëgg Galas Kébé moom Pikine la bëgg Galas Pikine rek lay topp Galas Pikine rek lay topp waaye ñu ngi nii parcelle Modou ngi noonu di waaj a génn Modou ngi di génn ma ni ma oto baa ngi noonu oto baa ngi noonu di génn noonu oto baa ngi noonu di dem mene ko yaa ngi noonu di dem ngi noonu di dem yaa ngi noonu di dem noonu mobilisation baa ngi noonu gis ngeen ko noonu fas baa ngi noonu Modou ngi noonu di dem Modou ngi noonu di dem Modou ngi noonu di dem ngi noonu Modou di dem ma ne ko Modou ngi noonu di dem gis ngeen ko noonu papa gis nañ ni yaa ngi ci wàccaay Modou Lo bi. papa loo wax ci lamb ji. lamb ji daal a wax mooy. Modou Lo yal na ko yàlla may ndam.